les peuples de ñëwaat ci euh, ci waxtaan wi ci kalamay euh, koc gannaaw ba ñu libéré kii di maire bu Ndakaaru xalifa euh, Ababacar Sall Aliou Sow nekkoon nga fi ministre ci nguur Abdoulaye Wade ba tey tam nga yëngu ci wàllu politique tey ba nga ba nga jotee xibaar bi lan nga njëkk a yëg. non am naa ci mbégte bu baax a baax li ma wax léegi mooy dama ne Sénégal bu bees dafa judd bi bi depuis ñu ubbi jumaa Massalikul Jinaan ba tey dafa am Sénégal bu bees bu juddu. la mu firndeel na tàmbalee ko te ñu ñu ciy gërëm di ñaanal xalifa général des mourides di ñaanal bépp kilifa bépp tarixa boo xam ne ni yaa ngi ndox ci la démb ak barki démb ba loolu am tey la mu tàmbalee bu nekkee ne fa nekkul fi caaxaan wala naxe te yoon suñu doy te mënu faa kenn lii mu def tey mu niroo naa ak lu war a mottali la am démb ak luy tàmbali yeneen yoo xam ne ni dina indi jàmm ak salaam ci réew mi ginnaaw xayi jàmm xeexoon nañ xaxarante xarabante tibbantey tànk ku nekk jose nga naa yi nga mën jël ku nekk jiiñ ku nekk lu ne addi yëpp ñu nekk ci loolu ba fi mu ne nag ay léegi président Macky lu mu bëgg ci nag mais sénégalais yi mais gënul ñëpp gënul leen sax dañ ko jiital jox ko juróom-ñaari at jox ko juróom juróomi at fukki at ak ñaar kum doyul nag mais loo loo loo bëgg ci li ko war a dese mooy fi mu ne indi jàmm ci réew mi indi juboo liggéey xool nit ñi naka la ñuy naka lay naka lay saafaraay jafe-jafe askan wi te lépp loo xam ne ay tibbante tànk la pour ay xool ëllëg nooy lijjantee ñetteelu mandat nooy xoolee sa benn golo wala sa wala sa gong wala sa jegewaale wala koo óolu pour teg ko fi yàlla mooy teg président bi fi nekk moom mënu fi teg kenn mënu fi teg kenn loolu na ko leer nañu dama mu xam ko moom ay pexeem nag këppatal fii yombalal kële yëkkati cee jéem a daal loolu ay mbiru ay mbiru yëngatu nit xam nga bu xamee rek te bañ a déglu ñi ko topp di ko indil ay noonu guddeeg ñoo xam ne seen intérêt bopp kese xam nga ni bu nekkee da nga ñëw bala nguur di falu mun am ñeent fukki junni yu mat nga ñëw amay million amay teranga am na koy toll da ngay nga jël nii di ko def man maa ngi ko ci encouragé maa ko ci bravo maa ko ci ñaanal maa ko ci jàppale parce que lu may am solo Khalifa Sall quand moom ak ay li ñu def mosuñ nangu li leen teg mosuñ nangu li leen jiiñ mosul nangu si xaatim benn kayit ne dañuy dañuy baalu wax wala dañuy di may mais président am na sañ-sañ bu dee ci la mu bëgg a def ci réew ma mu xool lépp matuwaay ba mën na ko jël ngir indi jàmm ci réew ma te li mu def nii luy indi jàmm ci réew mi la luy wàññi euh, xa xaxarante la luy wàññi xiiroo la luy wàññi mbañeel la parce que Sénégal nag boo xoolee wenn ñu at yi ñu génn mais wax ñu ñaaw bañeel gi nit ñi bañante bañante ko ma même bu ndeyee sax ci mbedd mi di waxtaan léegi sax ku nekk di mbëkk keneen ki ku nekk di xool keneen ki Sénégal gi léegi ñoo xam dañuy daje lu ñuy wante ko indi mooy xàjjaloo ak féewaloo politique kii mooy jàppale kële kii mooy xeex kële waaye nag loolu bu ñu ko waxee aussi bu ñu fàttee ne aussi Sénégal yi daam lu ñu moom bu ñu ko def kumtu ay politiciens hmm. def ay deal pour lijjanti ay mbiru ay nit ay ay ay njoboot wala ay nit ay ay ay ci mbiru Sénégal loolu aussi Sénégal duñ ko mm-hmm. neex ni rek xumb ni rek ku nekk tàccu. ba pare dañu fekkee maasaale ci nag. jël Sénégal nag léegi euh, saam saamee quoi pour ay ñoo ne ni. seen mbiru bopp lañ fi nekkal. jaajëf Aliou jaajëf Aliou Sow nekkoon ministre euh, doon tamit addu ci gannaaw ba ñu libéré kii di Khalifa Ababacar nekkoon maire bu Ndakaaru